télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wérgu yaram santé animal ngir a sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. mi nga mën a wax sa jaar jaar. danga dara raw. Mm. visibilité dinga am promotion dinga am. nanga wane sa ci émission jaar jaar nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am veto fii ma jaar animal fii ci Ladoum TV Ladoum fa am veto fii ma jaar animal Ladoum TV fii ci téléspectateur Ladoum TV ñu ngi ci box numéro 51 fii nga xamante ni si mooy esplanade stade Amadou Barry mu nekk septième édition cercle des éleveurs de la banlieue macha allah ñu taxaw ci box numéro 51 ñu gis fi ñu tey fi benn maal bu rafet maal bu doy waar nga présenté ñu maal boobu gannaaw boo nuyoo ak téléspectateur Ladoum TV. waaw salaamaaleykum yaan waa télé Ladoum TV ñu ngi leen nuyu leen siyaar di leen jox seen waay maal bi ñu téye nag moo tudd jamono nekk aso 28 mois euh, nekk bel séer yaay gas. moom fan la bokk. moom doomu Moïse la quoi Moïse Soulker quoi Soulker roi Basir roi Basir Saloum. waaw yaay benn doomu karkaar lañ jël dak ko benn doomu commandant Kasso bu tuddoo résultat moo wàcc yaay ji njël yaa yaay ji takk si Moïse moom mu judd. macha allah waaw mbokk téléspectateur Ladoum TV doomu Moïse baa ngi noonu sëtu Soulker baa ngi noonu sëtu Roi Bachir baa ngi noonu tubaar fakkalla sëtu Karkar baa ngi nii sëtu commandant Kosso lañ koy wax macha allah boo xoolee ki nga xamante ni sii mooy jamono oh, xaru jamono la dafa wuyu turam macha allah nekk na xar mu rafet tey naka nga jàngatee production jamono. waaw production jamono moom wax dëgg yàlla kontaan rek parce que mën na góor mën na jigéen wax dëgg yàlla doom yi wàcc wax dëgg yàlla macha allah yëpp yëpp wax dëgg yàlla dem nañ wax dëgg yàlla waaw. Oh, xam ngeen ni kii lu mu dal or la lu mu waddal cu la kii bu produire te kaful. oh nekk na xar mu rafet macha allah. mbokk téléspectateur Ladoum TV boo xoolee tey gisaat nañ fi benn grande femelle encore oh kooku cu xar mi ngi daagu di ñëw macha allah xar maa ngoog ku gis xar ni xara ngi daal gaa ngi nii ku gis ni ku bëgg ni ku bañ ni kóor mooy kan waaw kii mooy Fatou Gueye ah, as 26 mois di doomu Dóo Gaynde yaay yi benn doomu kii jël benn doomu xarañ loolu lañ jël teg ko si benn uh, satu uh, waaw mu wàccee benn famel ñu jël famel boobu teg ko si doomu xarañ loo uh, yaayam juddu jël yaayam teg si duugaynde moom mu juddu waaw. Oh. Saalum baa ngi nii de satu gaynde gaa ngi nii. waaye dañoo gis mbote mu rafet mu dend ak moom xanaa mbote yi lay nàmpal. waaw mbote yi moom lay nàmpal waaw. mbote yi kuy seen baay. mbote yi seen baay jamono mooy seen papa. mbokk téléspectateur Ladoum TV la ma doon wax ci jamono ngi nii ndax dañoo jël ki nga xamante ni si mooy doomu dugaynde jox ko ki nga xamante ni si mooy doomu Moïse boo dàqaatee dañuy daw daja ca Saalum ba macha allah tey boo xoolee mbote bii muy nàmpal. nekk na mbote mu extraordinaire nekk na mbote mu rafet nekk na mboote mu pare mbote bi nu mu tudd. waaw mbote bi nag amagul tur. waaw amagul tur quoi. mi ngi toll si ñaata mois. <laughs> deux mois. deux mois waaw. tey mbote mi bu éleveur ñëwoon bëgg ko foqati si yow. waaw mbote bi am na koo foqati ba pare. Eh? waaw. seex la de seex la bisan seex baa ngi ne. Oh. waaw. ku ma jox benn sën maal bi. doomu doomu jamono bu góor. moom moo jënaat seex moo jënaat seex bi euh, waaw moom ñaari seex yi nga joxe benn téye benn non non ñaari seex yëpp laa joxe sa waay xaru waaw parce que seex bi ni kii ki ma jox maal bi waaw moo ñëwaat soxlaat production bi uh-huh. ma ma ma ne ko man tam dooma gën a góor ma yëkkati seex bi teg ko jox ko waaw moom moo tax nag ma jox ko mais bu doon keneen du ma ko joxe xanaa sa waay xanaa sa waay jël nay ku yu bari waaw jël nay ku ma wax dëgg yàlla dem na ardo demati ardo demateeti ardo waaw loolu moom wax dëgg yàlla alhamdulilah wax dëgg yàlla macha allah mbokk téléspectateur Ladoum TV lii la ñuy doye maal ki nga xamante ni si mooy jamono nekk doom ci Moïse Moïse nekk ci doom ki nga xamante ni sii mooy Soulker ah Soulker tamit jaaroon ci bergerie bi nga xamante ni sii mooy bergerie Moussa Diouf kaas ba macha allah nekk doom ci ki nga xam ne mooy roi waaye gis nañ fi beneen tëng oh waaw tëng bi nag mooy magi seex yi kii mu ngi tudd Kouro Ndao. Kouro Ndao. te as euh, waaw. mi si huit mois as bi si huit mois la toll quoi. waaw doomu duggay ne mooy yaayam jamono mooy papam. Eh. wax dëgg waaye ku gis ne kóor nii ku gis ne dàllin kóor gaa ngi nii waaye xam ngeen ne jamono lu mu xelliwul ay folowaay ah boo ma xoolalee tëng bii tëng bii moom mbaa doo ko joxe. non tëng moom wax dëgg yàlla du ma ko joxe. ay ayaata kay. parce que gars yi daal song nañ ma côté bu nekk man leen biiral bay leen biiral ma téye ko waaw. mais est-ce xam nga dee mbote yi ñoo mën ñoo mën tëgg bi. waaw loolu la gars yi wax de man leen lum lum lum jur lu nekk dañuy wax ne loolu moo man li li li li. est ngay joxe mbote yi say bët fàttuwul. non non samay man xam naa kii nu muy juree parce que man yor naa ko maa ko yor moo tax xam naa xam naa nu muy juree xam naa nu muy juree lii ñëw mooy dàq maanaam li nga xamante ne moom la moom la moom la njëkk am est-ce xam nga ne doomu Dou Gaynde bii Fatou Gueye bi danaa la booleeg gars yi ñu ñëw foqati ko par force. ay millions yi ba lay tëdd de. kii dinañu ñëw foqati ko par kii kii maa la wax loolu. force la dëgg. Hmm. joxe sa xaalis bi wax tàll. Hmm. ma ma ma ma sëgg ko. nga daw wallaay lancé. kii danaa la booleeg ñoo xam ne danañ la wulli ba nga tëdd. ñu récupéré ko yóbbu. yaakaaruma ko de kii. fan nga teg loolu. parce que li ma am hmm. man am supervision bi man may gars fay moo ko. dama am si partition moo lu may lu may gars yi fay si si fan waaw. ak lu élevage leen xel bu baax a baax ki nga xam ne mooy faatu Gueye doomu du gaynde baa ngi nii sëtu gaynde gaa ngi nii sëtu Saloum baa ngi nii macha allah nga fàttali ñu bergerie bi fan la nekk ak sa numéro téléphone. waaw bergerie mi ngi tudd bergerie Yaay Gaas ah Fass Mbao quartier Harouna Sow Sam Sam 3 waaw numéro téléphone mu ngi nekk 77 860 25 66. beneen bi mu ngi nekk 78 130 84 66. waaw. waaw ñoo ngi ko doon wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla émission bi neex na lool macha allah. wax dëgg yàlla kontaan nañu si yéen seen émission yi am na solo wax dëgg yàlla yàlla na yàlla barkeel. mooy télé bi bégal sama ṣe.